partenariat ak ay réew yu mel ni Chine foog ñu yeesal li nga xamante ne mooy suñu euh, euh, suñu transport euh, aérien diggante ñu nag ñoom parce que deux jours de vol entre Chine ak kii ak Sénégal loolu bëri na te loolu noonu du yombal mbir yi te loolu dinañ ci ñëwaat mais li gën a tax li gën a am solo ci daje tey bi mooy ni que tey ñëwuñu pour wan Sénégal chinois yi rek li nga xamante ne moom moo am Sénégal ci mbirum investissement li ëpp solo li ëppoon solo daje tey bi mooy dañoo jël ay entreprises sénégalaises ñëw. ak entreprise chinoise yi toogal leen ne leen yéen mii nga xamante ne yéen ngeen yëngu ci mbirum koom-koom ci mbirum euh, euh, euh, daan doole ñu ngi leen wan yéen ñaa ñëpp li nga xamante ne mooy opportunité d'investissement mooy fépp fi nga xamante ne soo leen fi investir ci Sénégal dina indil dara yéen ñaa ñëpp dañ koy wan te ñi ngi sàkku ci yéen ngeen booloo seen doole ndaxte dañu jàpp ni que tey Sénégal ñu toog rek di xool entreprise yi yi nga xamante ne ñoo jóge bitim réew ñëw investir Sénégal parce que képp ku ci investir day jël ben part de marché ci entreprise sénégalaise yi donte naam nangu nañ ko te dina loolu dina gëna gën képp ku jog bëgg ñëw investir Sénégal dina la ubbil suñuy bunt ndaxte ñun on est des pays euh, yi nga xamné très ouvert au monde mais tamit li ñi gëna jittal moy entreprise sénégalaise yi nga xamante ne leen wara dolel dooleel leen wara yok yokk seen kattan ñu mëna a jëflanteeg ñi nga xamante mom moy entreprise yi nga xamné ne ñoo fi ñëw té loolu non ci ben esprit bu bu bu calme esprit bu serein esprit bu transparent Euh, ñu gën a jokkalante ndaxte jam lañ toll nii jam lañ toll nii muy na relation gagnant gagnant nañuy woote te loolu noonu mooy suñu suñu doxal loolu la ñu suñ suñu président sëñ euh, basiru jamaay fay digal ci tànk yooyu nañu dox ñun apix bi nga xamante ne mooy bërëb fii sénégal képp ku bëgg investir euh, ci ñun ngay jaar ñun ñu ngi am taxawaay boobu tey ci bés bi tey. waaw comme ni mu ko waxee sànq ci ci nasaraan rek mooy ne que ñun jéego ñuy jox ci jamono toll nii mooy jéego yi nga xamante ne mooy dañuy gën a euh, bëral li nga xamante ne moom mooy partenariat bi am ñi nga xamante dañ ñëw di investir fii ak suñu entreprise sénégalaise ba tax ne que tey toogatuñu di xaar rek entreprise yi di ñëw fase nañu sol suñu dàll ànd ak suñu entreprise naataangoo entreprise sénégalaise yi di wër àdduna bi képp fépp foo xamante ne. am na benn partenariat boo xam ne war ko sur le plan technique sur le plan financier ak ci wàllu bu mu mënti doon euh, jëflante ak ñoom investir au Sénégal te loolu yaakaar naa ñi nga secteur privé nous sommes nos suñu premier ambassadeur war les leen nous war def mettre à leur disposition les li nga xam ne mooy information yi nga xam am ci ci investissement ci Sénégal nous ñu gën ko mën fësal nous sommes nos suñu premier partenaire. Euh, ni comme ni ma ko waxee sànq ci tubab euh, du ñuy rafetlu euh, genre rencontre bi am fi tay ce matin parce que comme ni ma leen ko waxé secteur privé national manam entreprise sénégalaise yi duñu soxlu duñu ñu soxla ubbeeku ci sen homologue de d'autres continents té ñëpp xam nañ né Chine nek na ci économie yu gëna ëpp doole ci aduna bi donc euh, li su amé tay njëriñ la rek pour suñu entreprise nationale yi nax dinañ mëna lekkolo ak seen naataangooyu chinois yi pour justement ñom ñu indil leen sen xam-xam sen mën-mën euh, té lolu ñun duñu ko soxla nak euh, c'est vrai que suñu entreprise nationale yi am nañ volonté bëgg nañ participer euh, ci développement Sénégal état bi mo ngi leen ci jappalé mais encore faudrait-il que ñu am capacité bi té lima ma moy né ne suñu natango chinois yi fi nek tay ni am na lu bare lu ñu lu ñu indil ci secteur d'activité yépp li ma tàmm wax nag euh, c'est vrai jënd ak jaay baax na euh, loolu kenn du ko weddi mais ñun lu ñu bëgg mooy na entreprise chinois yi euh, lëkkaloo ak seen nataangoo sénégalais pour ñu créer ay entreprise maanaam secteur productif ñuy produire parce que loolu mooy régler problème mu xëyu ndaw yi loolu mooy tax ñoom seen xam-xam bés bu ñu demee ñun ñu mun ci ñu mun ci ñu am lu ñu ci mën a jën On continuer donc euh, loolu aussi tam lu am importance la jënd ba mais man li ma wax il faut que secteur productif maanaam ñuy créer ay industrie secteur manufacturier loolu mooy mun a développer euh, suñu réew man loolu laa gëm te si loolu la ñuy dox chaque jour